ci ay nitu yàlla bu may wax nitu yàlla nag waxuma këru diine yi ñu may wax sëñ Babacar Mansour wax na wax bu am solo benn njaboot nee na ko mbaa bokkuloo ci ñi nga xam ni dañ defe ni yàlla dafa jël léppam jox ko Cheikh Seydil Hadji Malick ku ko def ci sa bopp juum nga séddu na waaye yàlla jëlul léppam jox ko ko de ku ko def ci sa bopp ba romb fii borom yi sagar xepp ko yàlla dina fudd sa ndég saful sunu borom yàlla ay cëram la amee di ko joxe moo tax ku defe ni sa bàyyi fi nekk yàlla dafa jël cër yépp jox ko ko wax ja ca boppam moo njëkku la jub yaay faj soxla yi ku ñëpp di wax boo xëyee doxi soxla weddi nga sa bopp bu la sa ay taalibe weddiwul wax bii ah. suñu kër rek la xew ah. maa leen ko wax de li mu wax dara gënu koo nekk dëgg ku defe ni yàlla dafa jël lépp jox ko Maodo juum nga